rek mooy teg loxo nguurug Sénégal ci atum 2024 yër leen yëglekaay bi di réew mi quotidien séq na ceeg ñoom waxtaan wu yaatu Sud Quotidien moom di defuk pàccali ci lu jëm ci financement yu parti politique yi dooxee ko ci Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall Walf Quotidien moom ci jamono joojee nag muy àddu jëmale ci ku jégeeg jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy la ci seen ay tournée yu ñuy amal dëkkee nag di bloqué seen ay cortège saay su nekk ci les échos moom Karim Wade nag ne ci yoonuk moom boppam waaye Bassirou Diomaye Faye nag mi ngi ci loxol yoon ginnaaw nag bi nga xam ne ay mbiram jamono ji nag mi ngi ci loxol sept sages yi nag waaye lu jëm ba tey ci mbirum Karim wàdd nag ma ngay xam ne ni nag amande bi nga xam ne moo tollu ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi ñu gàlloon ci ndoddam loolee nag mënu koo tere ngir mu mën a bokk ci élection présidentielle yi ñuy amalee fii ci réew Sénégal Sénégal googee nag ne ci la jugu méttee métti ginnaaw rapport boo xam ne rek waa Civicus Monitor fësal nañu ko mu jëm ci wàllum liberté civique rapport boobee nag mu fësal ne Sénégal gu dëkkee di salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi loolu laa ca gën a fësal rawatina nag ci jamono ji ñuy waajal élection ci données yi ñu fësal nag ñeel xëyub Sénégal jàpp nañu ne nag Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a dellu ginnaaw ci atum 2023 bi nag ci àdduna wërngal këpp jëm ci wàllum liberté civique donte ni nag réew la moo xamante nii dañu koo jàppee woon ab royukaay jëm ci wàllu démocratie ci Afrique soow jant waaye nag loolee lépp Sénégal gas na ko ba mu xóot daal di koy suul ñu des ba tey ci rapport annuel bu Cuvicus Monitor jëm nag ci wàllum liberté civile yoor yoor nag di xëy fësal ci xëtam bu njëkk ne Sénégal nag jamono ji dëkk la gu ñëpp di ŋàññ ndax ni muy salfaañee àq ak yelleefu doomu aadama yi jàpp njiital ku jégi Ousmane Sonko tëj ko ci kaso bi jël partem bi di Pastef daal di koy tasaare manifestation yoo xam ne dafa yànd ak ay bakkan yuy faatu ay taskatu xibaar ak i défenseur yu droit de l'homme yoon di leen harceler saay su nekk ci jamono joojee nag yéenekaay bi di Le Soleil dikk ci inauguration bu structure mariale bu Popenguine yéenekaay bi ne ci ab ndajeb conseil des ministres buñ doon amal moom njiitu réew mi nag ma nemmeeku yëngu-yëngu yi nag ñu daal di koy amal ci teewaayu ki nga xam ne rek moom la fi Pape François daal di yebal au nom de l'histoire loole nag moom la yéenekaay bi di quotidien daal di fësal ci xëtam bu njëkk jëm nag ci ngénte yi nga xam ne rek moom Macky Sall mu ngi koy amal nag di jël yenn ci ay édifices yu mag ngir dippee ay kàngam yu nekk fii ci dendu Afrique l'observateur jamono joojee nag xëy séeq ak waxtaan njiital république des valeurs moom ci Thierno Alassane Sall ma ngay wax ay dëggam ci yéenekaay bii nag jëm ci xaalis bi setul bi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku muy jaabaa jonge ci biir réew Sénégal Sénégal bekk ni mu yàqee jikko yi xiiroog ngaayoo façonti sikkim bi ñu nemmeeku ci jamonoy élection yi nag ma nga cay dellu siwaat nag ma ngay xamle itam ne système clé bi ñu indi ci wàllum vérification des parrainages loolee nag ay farce la yër leen yëglekaay boobee di l'observateur las quotidien dellu siwaat nag ci lu soxal coowal suuf gi dox ci diggante Mohamed Mbeng ak Omar Sey jëm nag ci ab terrain boo xamante nii ma nga ca Almadi ci ay dossier nag yuy fësal ne 2017 te maître Abdoulaye Wade nag moo ko jébbaloon parcelle bi nag moom officier bu l'armée bi le témoin di këg ñun nag ci koppar yu takku yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku mu di masse salariale bu état bu Sénégal jëm nag ci ñii nga xam ne moo di fonctionnaire yi lu toll ci téeméeri milliards ak ñeent daañu ko lekk weer wu nekk mu fekk nag enquête moom daal di dikk ci ñaxtu goo xam ne rek ñii di pétrolier yi ñu ngi koy ñaxtu jëm nag ci ab bor boo xamante ne nii nag état bu Sénégal yoreel na ko këru liggéeyukaay yi nga xam ne rek dañuy yëngu ci wàllu pétrole société yooyee cent quarante milliards ngir état bu Sénégal jébbal leen ko ñu wax nag ci Vox Populi giy dellu suwaat nag ci musiba mbaaba kumba gi xew ci géej gi Barça wala Barsax yéenekaay bi ne île de Canaries néew yi moom ña nga fa fees dell ci morgue yi maam Cheikh mbay miy jiital fédération des associations africaines aux îles les Canaries moo ko xamle ci biir yëglekaay bi yokku ci ne nag société civile bu Espagne nag dañoo lànk lu jëm nag ci wàllu fausse commune yi situation bu doy jamono ji nag moo ca am waral nag muy fëgg gémmiñam di xamle ni Afrique mi ngi ñàkk ay ndawam